salaamaaleykum man la Azoura Fall seen doom seen xarit Macky Sall dañ ma un an de kaso génn naa dañ ma invité woon kër Maam Diarra. asalaamaaleykum man la Maam Diarra Guèye di seen mbokku patriote doon doxi samay soxla brasé la tax ñu tëj ma weeru yàlla maa ngi nii. asalaamaaleykum man la Maimouna Bodian dañ doon sensibiliser pour sénégalais yi jëli seen carte électeur ñu jàpp ñu fàttuñu ci kaso man la Binta Ndiaye di seen mbokk patriote maa ngi woon ci internet bi di militer pour Pastef suñu àq ak yelleef ñu delloo loolu lañ ma jàppee te ñu 15 jours campagne man la Ami Collé alias Colette Babel maa jógee woon ci caravane de la liberté bu Ousmane Sonko tëj nañ ma 3 mois et demi man la sama tànk yi paralysé moo tax ñu bàyyi ma ndogu la ñu invité salaamaaleykum man la Thiat waaw ah, dama doon tuuti eh, jàpp ma bàcc nañ ma bàcc yi sax tëdd naa 4 mois voilà ca bàcc yàlla. asalaamaaleykum <laughs> maa ngi tudd man ngeen di jaar yi man dañoo jàppoon si sensibiliser dañ demoon jàpp ñu tëj ñu un mois neuf jours ñu ni bàyyi nañu. asalaamaaleykum man la Ndeye Marie Sagna dama doon nelaw ñu yéema ne dama doon defar cocktail Molotov ak sama jëkkër ñu tëj ñu 9 mois 10 jours. Sénégal wala boobu mbala mbali dañ doon def mouvement. salaamaaleykum yaay sëñ Saliou activiste militante de Pastef dama doon bàcc muy leer ci réseaux sociaux yi ñu fekk ma bureau jàpp ma 6 mois séparé ma ak sama doom. salaamaaleykum Macky Sall ñaar Macky Macky Sall nee na man maa tax ñu bañ ko moo tax mu tëj ma 10 mois de prison maa ngi nii. Fallou Fula. Fallou xanaa si yow laay tëj. non jeex na xaar xaar xaar bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi. bàyyi bi ngi dem non demul demul demul muy dem. est-ce que enregistré nga ba pare. Fala Fleur yi nii tànk yee bañ. demoon ci Ziguinchor am 46 degré xanaa war naa wàcc nag. 46 degré tamit.